Bonsoir, Bril Neko, bonsoir. Yeah, allô, bonsoir, Nakala. Bonsoir, ça va, comment ça va? Yeah, Mangi Koul, Naka Ferry. Tu vas bien Yeah, santé, allô, Ça C'est Aïdaka. Yeah, Aïdaka, Naka War. Ça va, je vais bien. Ouais, Mangi Koul, santé, allô, Barba. Mm, c'est job nice, non Yeah, merci beaucoup, Aïda. Nous, on est live, on va dire, merci. Oh, maintenant, là, sommes live, bio. Merci, gentil, papa. merci beaucoup kon naka lay woowee laay ah? fa. yee nooy woowee nooy woowee nooy woowee sa bébé d'amour. paradise li ngay woowee sa bébé d'amour naa woowee sama bopp. paradise paradise dara ëpp ko. <laughs> xam nga ni ma boo ko bëggee da nga koy topp te fu mu jaar fa ngay jaar. yee loolu dafa am loolu mooy lépp. kon voilà bàyyi ma jël paradise dégg paradise yow. afta nga teg ci sama live. kon jeex na. <laughs> neex na. ok kontaan naa lu ma yàggoon bëgg la bi ñu fay fo ñëw kii FM. merci beaucoup kontaan naa ci yow. nekk na kon donc bëgg nañ quoi. voilà merci beaucoup content naa si yow bu baax a baax. aywa kañ nga koy invité mu ñëw Mbour. non <laughs> eh, sama diwaan la dama war a teew Mbour yow ñu def fa lu nice bu neexee yàlla. non non di Non, non, en plus tamit am na lu ma la waxoon dama la koy wax en direct. yow ak eh. ak lu break. ñun samay broda lañ samay frère lañ. neexuma. jënd leen seen affaire. waa Sénégal ñooy bëgg di jaxase rek ma jote wuñu dara. dafa nekk ne man dama leen bëgg yéen ak lu man sama xool kon donc def leen ko. dëgg la samay broda lañ lañ allah rajo yow amul solo incha allahu rabi loolu laa yàgg def ci dinaa continuer ko def bu neexee yàlla. ok boo ko defee rek ñun dañuy bëgg di nekk sa gannaaw quoi. incha allah amul benn problème benn la benn la quoi Akhlou Brick Fight foofu moom benn la quoi. ok c'est